mais mbër ñun laal tuuti actualité mu am benn phénomène bu xew mooy d'habitude euh, ci politiciens yi ñu gis ñuy tuddee ay nervi hmm. soit mbër yi dañ ciy bëri trop euh, ñuy ñu def yenn yoo ñu bëri rafetluñ phénomène boobu mbër <laughs> bi gis euh, bu fekkee nit nga ñu ñëwee doomu aadama lan tey bu nit bu entraînement ba bu jaara si benn bés day day dégg mbër na ya xoola mbër ma lay dem hmm. duñu xam kan la yow na am saayis rek ñu ne ñu ne xoola mbër ma lay dem pour ñoom ku dul mbër waroo jàpp yow boo entraîné ba ceene mbër nga war a doon kon nag bu fekkee tey politicien dafa ñëw jël genre boobu dugal nañ seen biir fay xaalis mm-hmm. yaa ngi dégg dafa jël genre boobu dugal nañ seen biir fay leen xaalis ñooñu fu ñu solo seen tenue yi taxaw dañuy am maas mm-hmm. gabar yi mm-hmm. boo xoolee naan mbër yi mbër yi ngay wax bu nee mbër yi nag bàyyiwun kenn bàyyiwun ba xam joon bàyyiwun ma sàmba bàyyiwun ma demb mais pour ñoom ku am saay rek mbër mais am na ñoo xam ñu ngi fi entraînement ba ne keng ëpp mbëri doole fuuf gële na jekk saayes yaa ngi dégg na ci dëkk bi fii na ci bois yi garde yaa ngi dégg di def ay sécurité mhm. mais nag lu jug ñu ne mbëri mbëri mbëri xam nga mais man li may wax daal mooy ñun ñëpp nañ xam ni Sénégal ñoo ko bokk ñu ñoo ko ah, mais nervi yi man su ma génnee mhm. tey ji ànd ak politiciens yi jël benn xale door ko yar mhm. amaana xale boobu ma dóor tey yàlla mën na ko fee bàyyi ëllëg moom xale boobu nekk président de la république yaa ngi dégg amaana mën naa tey daye benn xale si ambiance bi dóor ko yar fekk man sama doomu mag laa dóor wala sama doomu nijaay wala sama doomu bàggin wala sama doomu mbokk wala sama doomu xarit est ce que naa xam loolu mm-hmm. kon gars yi nañuy bàyyi xel politicien bu mën a àndal bu nekk rek ñu demee xel quoi vraiment sécurité moom aayul moom nag mm-hmm. nit ku nekk sañ booy dem fooy dem fu ngay dem wóoloo fa ñu àndaa yow comme ñoom suñu mbokk politiciens noonu la ñuy def ñu ba nga ñëw dara new ci violence daal waaye nag ñu arrêté maanaam dóoraate yi ak mm-hmm. yenn yi quoi ñu arrêté ko dëgg yàlla quoi xam président Macky Sall mooy président Sénégal te xam naa ne moom tey jii bu soñoon tey Sénégal benn dëkk du ko gën ci àdduna mhm. xam la kon nag ñi nga xam noo ànd ak moom day gardu kooram mooy policier yeeg yaa ngi dégg ak sécurité bi ak tout na gars yi bàyyi xel ci askan wi te xam ne askan wi président Macky Sall ñu askan wi ñoo ko fi teg mhm. kon nag askan wi ñu fi teg ba pare yaa ngi dégg ñu def ay tournée ñu si dégg ay violence loolu dafa ñaaw mhm. dafa ñaaw waaw mooy li la wax sànq rek kenn ku ci nekk rek na jàppe ni xale bu jigéen bi ma tiim tey yaa ngi dégg yor sama yar bëgg ko dóor sa am naa rakk bu jigéen kër ga wala mok bu jigen sa sama yaay jigen la hmm. xale bu góor metim tay yor sama yar bëgg ko door amna naa bu góor gay deug keur kër ga sama papa góor la man ñu am genre xalaat yoyu quoi bu ko defee jamm salam rek du am quoi vraiment hmm. mais violence mom baaxu ci len wa plus ma politicien sa baaxu ñom quoi hmm. parce que euh, politicien borom la mbayam yow boy wutu ji la yoon nga histoire mais yow yaay wutu uti ji amagoo histoire lool baaxul lool da lay yàqal sax mu ngi mel ni borom làmb muy bëre ji gennagul sax gaay mi commencé xé seen bir boy dem ñu lay daan lool day tojal baaxul kon nag politicien boo ànd ak ay nit yaa ngi dégg da ngeen xamal carrément ñii ay doomu aadama lañ comme yéen yaa ngi dégg dafa am lu may wut te li may wut si doomu aadama yi la nekk da leen daw a yërmande da leen masla mais yor ay yat moom dóor ak ay kuur moom loolu moom kenn àndu ci mm-hmm. ak ku man a doon nag mbër meeg nerveeg ñëppaa ci bokkam loolu moom kenn àndu ci quoi vraiment euh, balaa may daaneel mu waxtaan bi mu am koo xamante ni muy bëgg a gudd de balaa may daaneel dañuy ah. tëj sax euh, mu am koo xamante ni mën naa ni ku la jege woon la donc am lu mu représenté ci bu bëri nekk tamit ko am teen tey ay kàddoom ñu bëri boo waxee rek dañ koy may nopp donc mu nekk sa waajur bu góor sànq début waxtaan bi na loo ci wax euh, tey la baa ma ñoon ban anecdote c'est-à-dire lan nga dund ak moom loo am te ne tey marqué na la trop non nga nag si euh, yow rek xam nga tey su ma laajee question ne sa papa loo dund ak moom tey yaa ngi dégg nga xool sa papa ba mu la ba mu la ba yàlla dogalee mu nga jaar si moom ba ñëw àdduna nga ne xale bu ndaw ba ni nga nekkee mag dem ba takka soxna mu takkal la soxna sa kanam mu dem nga dem ba am doom sa papa di gis say doom gis ci dem kon yaakaar naa yaa dégg sant yalla la ndax am nañu juddu tay yaay deug re am nañu am doom tay tay tay sen doom juddu ñu génn àdduna duñ gis sen bay yaay deug am nañu ñoo xamante du seen bàyyi benn at ñu ni at kon na yaay yalla bu la yalla sama borom jappale may la nga dund sa wajur mu lay tet di la yar nga dem ba am soxna ba am doom ñu gis ci dem yalla do ko lolu sant yalla suñu borom la yaay deug ndax euh, danaan tey ñun ay référence maanaam Seydina Mohamed lañ gëm te ay jullit lañ hmm. lépp loo xamante ni dal nañu rek boo lu la da ci àdduna boo xoolee Seydina Mohamed yaa ngi dégg da day oyof si yow Seydina Mohamed waajuram teel naa génn àdduna hmm. yaayam toll naa gër donc sama papa dem na sama yaay dem na hmm. mais bu ñu xoolee si moom du ñu sonn ndax moom moo ñu gën moo tax yàlla bind ñu te moom point yooyu yëpp yàlla daf ko essayé ci moom doon doonu kaa jox ñun lépp la métti rek si moom quoi waaw loolu quoi mais waajur moom muy papa di yaay amuñ seen fay. waaw ndax suñu ñëwaat na si yàlla suñu borom suñuy leer si ñoom la ko jaarale kon yàlla nañ yàlla xaare àjjana ak bépp mbooleem waajur ne yomal xiyaam yàlla nañ yàlla xaare àjjana mm. yàlla dëkkal leen si àjjana kaw ñu teew seen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm. loolu quoi mais pour taxaw naa laan ma sama waajur jaaraan fii fii day xaw di sama côté quoi moo tax mm. mais li ma wax daal am nañ waajur boo xam ne tey am na waajur xam ne leen bàkkoo waaw ci kàddu ñëpp am na am na waajur yoo xam da ngeen ndamoo bu ne ku sa nga diw rek da ba am am contentement ah ay sa ay sa papa ak baaxul sa papa ak nangam sa papa ak nangam loolu dafa neex loolu moo daa xam milliard mu ne ku ne ku lan sa bon papaam barki dem la ya sàccale woon dana dana agressé dana nangam loolu dafa ñaaw yaa ngi dégg kon nag nañ sant suñuy waajur bu baax baax a xam nga ndax amuñu lu ñoom tey ku sonn say waajur tax waaw yàlla na fay ci nga am rak mu dugg ci di wone boppam fi mu toll ni ñu bëri ñu ngi koy ràññee bu ñu lim ñu am te ñoo espoir di sax ci mbëri dañ ko ciy lim mhm. euh, récemment mu bëri am ndam la am solo mhm. nan nan nga ko gisee Baye Mandione junior waaw dañuy sant yàlla suñu borom rek wallahi man mi waxee nii bëgguma sax mu bëri ndax boo xoolee ndax bëgguma mu bëri lamb dafa doy waar man ma xool fi jaar si lamb ak pakk pakk yi ci nekk ak wor yi ci nekk yaa ngi dégg ak euh, maanaam lamb pour nga doon mbër dëgg dëgg dëgg il fallait nga fiir te man fii daa ngi bëri nekkul ci man te xam naa nekkul ci moom waaw man sama làmb lu bëree bëri lu gàllankoor sama làmb ci lu bëree bëree bëri confiance bu ëpp la. Mm-hmm. ba damay gis nit tey tey tey tey laa la de. Mm-hmm. yàlla boole ñu tey. du ma am sa xel ñaar si yow ay ki damay yàqal ak ki nanga du ma am du ma am genre xel yooyu. Mm-hmm. pour yow man yàlla boole nañu rek damay damay yow yaa may gën a sa sama bopp. yaa ngi dégg ma am ci ay déception yu doy waar ci ay doomu aadama ay wor yu doy waar yoo xamante ni ma defa defa defa def. yu yéeme man bëri naa fee mbër yaa ngi dégg combat bi ñu ne ginaaw suba la ma ànd ak suma mag yaay deug ak suma rakki papa yu dem ci benn serign yaay deug de mu doon defal ay ñaan ñu ñoo fee woon pour mu jox ay bitel quoi bitel ñu saafara yi sango musla yi ñu dem duka fekk fa rakki mbeur mi mu jël mom tamit ay bagasam fekk fa rakki mbeur mi may beurel mu jël ay bagasam mom tamit ma taxaw ni wow te fekk sama rakki papa mo ne ay ki ni ki rakki diw de ma ko man xamé na ko affaire yi quoi mais affaire bu gala laa lay wax ni ñoo mujjé daf ma dal ay yoon yoon bëri wa na fekk mbeur encore am benn kilifa bu ñu booleel yaa ngi dégg côté bi côté bii la xaw ma ay côté Kër Massar la xaw ma nangam nii noonu la fa demee waat damaa dugg si kër gi bi ñuy génn rek saan benn xale la daan waa kii moom mooy bëri diw diw diw diw diw bu fi ñëwoon démb moo tax làmb dafa bëri ay affaire yu ci nekk. waaw moo tax da ngay dem ba mujj ah, eh, eh, logiquement da ngay dem ba mujj gi man. affaire gàllaaj damay sa waay dem ba da am déception yu doy waar. mais ñaari situation yu yéeme yooyu noo ko dundee. ab da nga ñibbaat. te ne instant nii booy bi sama rakk bi boo amul vision dëgg ak ndimbalul ndimbalul yàgg yàlla dëgg dina jaar su yu mel noonu. non li loolu mbër mu nekk maanaam mbër mu dellu bariwul. comme yi nga sama yoon nga la ma ne leen kii bàyyi ma dama dama mu jógee après da mu jógee danaa ma soo mag loolu la ma soo benn bi na ma yow lamb yow li ngay bañ sabaru ñu bëri moom la ñuy def moo tax ñu am lu ñu am. Hmm. il fallait que ngay def ni ñoom. yow bu ne bu nee tàkk nga ne sëriñ bi non fii la benn tàkkusaan moo ñu boole bu jeexee jeex na quoi jaru nga def yooyu. jaru yenn bu la joxee dara ne ma takkal wala suulal wala defal nangam ak nangam moo leen non non. maanaam ba joxee saafara ne ma sangool musulaay dinaa sangu ma joxee téere ne ma takkal ma naa takk takk te bu ma takkee pare bu ko baab jeexee tekki naa yëpp teg fële. Hmm. balaa ma ñëwati. mais doo liggéey kenn xam nga non am yàlla tere lamb ji am fa rek la jàmbaar naa fi ne di liggéey doomu aadama dama kaa dof damaa dof non xabaar ko rasulullah xalaatuma ko bu fekkee looloo may may ndam moo xam du ma am doom ci àdduna dëg too sëriñ naakaan defal ma liy nit defal ma liy nit yàlla tere bu àggina daa neex de làmb ji affaire àdduna fii la yam làmb ay fo kose la fii la yam an suñu papa papa kan anuñu an ñoom pour perdre ba les yàlla na ko yàlla yëkk di yàlla fa tawat ak père euh, kii Mbaye Gueye Mbaye Gueye yàlla na yàlla sama borom békkati père Boy Bambara yàlla a ko yàlla xaaraajana ak père Mor Fadam ak euh, père Balla Gaye bu mag ak maanaam bëri bëri newoon ci làmba ñëpp génn yàlla na yàlla fay àjjana ci waajur yi fi nekk day ay mbër yu mag feebar yàlla na yàlla sama borom defal wër yaa ngi dégg mbëri ndaw it mbëri ndaw yi fi nekk feebar yàlla na yàlla sama borom defal wër ban àggali seen carrière xam nga mais li ma la mën a wax daal ba mën la kaa wax mooy lan man bàyyi ma jox ne bu fekkee def ni bon moy tax ma am terangay aduna mahamadou bakam bakar ak moy de xalatuma ko ci aduna barko rasulullah jambar ñun ay jurul len yaay deg de lamb gi du dara blanka xam nga beure mbeur tay bu suba ngeen dajé ngeen xaye ñaar ku ne day rusu ci sa xol morom day sa nga am kersa mais lo xam nga def bari am kersa da jaru def lu ñaw jaru ko ha mhm. ah? giri bodo bu nyarun ñaaron ma ak mom day deg teew xol fu fu ndey ñoy bokk ndey ñoy bokk bay day deg musa jum beure yaa ngi dégg champion yu bëri ay Bosaka ay Kayra ñoom ñëpp tey ku ma si jàkkaarloo du ma si gis a xool la yaa ngi dégg damay am si kersa sax sama diggante ak ñoom xam nga te kenn ku nekk bëri naa yow mais bu jeexee jën na tey mbëri boo leen fekkee gitaay tey da nga xam lay wax boo leen fekkee gitaay te def naa fi benn adversaire mbëreem ñëw euh, Seck Thia gars yi dañoo dañoo foofu quoi pour pour lancer benn message ah, euh, ah. euh, président état bi mm-hmm. yemba mu ne sama jour adversaire mais nga xool mbër yi ni doxale foofu noonu si guddi benn waaye moom woon ni mbër yi noonu seen biir hmm. ma ne ko ah kon nag ay def ngeen ñu teg pour ñoom <laughs> waaw pour pour yéen da ngeen ne ci làmb yi di déwlante rayante buñ génn na ci bi après noonu la ñu si biir ma ne ko bu yàggee kon nekk dof di yéen ngeen ngeen nekk nit ñun mbër ñu nekk dof ay noble lan ay jàmbaar lan ay mbër yi def ko social lan mais du ñëpp de da am na mbër yu nday nag mais am na mbër yoo xam wax dëgg yàlla moom la yàlla wërsëgal ñu ngi koy bokk nag ñoo tax may wax ma maa ngi leen na yàlla yokk seen xéwal jox ay mm. ah, mais mbër yi nga xamante mm-hmm. dimbali seen i mbokk di dimbali néew doole yi ñooñu yàlla bu def andi balance ci barki Seydina Mohamed mm. mais ñu buy bëree rek mu doo ànd ak sa sago lan la non xam nga lan mooy problème bi nga làmb yow mu koy man su may bëri du ma am pression. bee boo stade bi waa bi du ma yëngal léegi loolu du ma benn pression bee boo ki may bëral nekk cinq personnes ci biir géew bi mille yëngaluma du ma du ma déranger mais tey damay jékki-jékki man ma ne waaw man xam nga lu ma jaaxal pourquoi man ma amee combat du ma am pression ci dara damay kaf damay rey du ma am pression mais benn mbër bi bëri bu dëkk caare bi bëri ci rek. su ma ci àndee dem stade même ma dem stade ma toog fii du ma nekk fekk dem fekk yàlla mayu ko ndam du man du man du ma nekk cent pour cent quoi. Mhm. léegi damay xalaat quoi mu ne man kon man mhm. dafa garaaw. Mhm. xam nga tey nga yàlla bool laa nit ngeen ko moom tamit moom mu ñëw. yaa ngi dégg de nga ñaan yàlla yàlla dafa ko ci làmb loo xam yàlla dafa ko ci làmb loo xam man du ma ko am sax yàlla may ko ci làmb loo xam man du ma ko am looloo ko ñaan yàlla suñu borom mais su ma xalaatee jaar-jaar lamb mooy li ma la def def si bon yeeg. Mm-hmm. ak affaire yi. yaa ngi dégg damay toog yàlla dama koy ñëwanta sa barki yàlla. moo mm-hmm. tax bu ma nekkee stade nii ma mën a xool ko mm-hmm. waaw li ci bari du a ànd ak moom dox ay vent nii dama koy bëgg a jéemee du ma ko mën. damay xam quoi. damay xam moment bi instant bi booy mi ngi waaye sëgg mais ki muy bëral ay sëriñam ñu ngi def lu nekk ci moom ci lu bon pour bëgg booy bi daanu. ndax dama cee jaar xam naa. yenn saa yi ngay préparer combat ñëw ci stade bi sa kër nekk waay am sawartament boo xamante ni nga dem laa la wax ni dox jékki-jékki ñaari jéego man ni sa yaram bi glace moo ci ne doo mën a yëngal sa benn cër mm-hmm. mais foofu nante ngay doon doo nangu sax ñi ngay àndal xam nga mm-hmm. foofu yaa ngi jax yaa ngi xaw doo bëgg nit xool la sax xam ni yow mii mm-hmm. maanaam laal la ci dara quoi da ngay saale xam lo mhm. lamb dafa metti dafa mhm. doy waar mhm. loolu moo tax ma am ñewantal boobu quoi di ko ñaan yàlla sama borom nag yàlla ko moog bépp mbër boo xam mu ngi takk ngemb si dëkk bi ak bépp mbër boo xam sa takul ngemb ci saare maanaam bëri na sénégal bi yàlla na yàlla sama borom aar ndax lamb dafa metti si meeku takk sër sa yaram neen ñëpp di la gis yaay ngi dégg te lu la fay da kaa war a jar kon nag yàlla na yàlla sama borom jàppale surtout nag mbëri ndaw yi encore ah, na promoteur di gestu mbëri ndaw mais tëgg combat bu mag te ñaari ko mbër mbëri mag fay leen cent millions di fay booy ay cent mill combat yi ndawee ay deux cent mille loolu dafay war a jigée hmm. te combat bi gën a ci làmb yaa ngi dëgg de booy booy ndaw a ndaw yi gën a ndaw bi xamante ni mooy premier combat bi bu dee ba dee ah mbër mu ndaw moom war naa laal un million kasem hmm. bi njëkk bëri laa la wax deuxième combat bi bu dee ba dee kooku war naa laal deux millions hmm. ñu génne ay cent mille ak ay cent mille ay deux cent mille trois cent mille six cent mille ci làmb dafay war a jugee dama bëri ndaw danoo sonn da dem ci équipe di fekk fa lu mot ay ay cent personnes mais ñaari nit la fa yàlla dimbali ñooy fay ak million ñi ci des ñëpp ay cent hmm. nekk fa say rak tey ngay fay ko ay million yaa war a di gesu say rak hmm. gesu quoi di leen jaarale si yoonu am dañu am ay combat yu baax teel am xaalis léegi investir dimbali seen waajur. Hmm. mais tey làmb gi man looloo ma si gën a métti ci làmb. fay mbër mu mag cent million mbër muy bëre premier combat bi amaana sax. combat yi ndaw mooy dàq sa grand combat bi am na fa tey lu ci ëpp mooy dàq yaa ngi dégg combat day àgg du mas niil day àgg day neex mm-hmm. mais yow nga xoola ñooñu nga fay cinquante mille cent mille ñu àgg mu neex ngi dem ba grand combat bi des lu grand combat bi grand combat bi ñëw saful dara mais kon yow li li nga fay euh, grand combat mais ñu ndaw ñoo ko ñoo ko ñoo ko mérito mais nañ jàppale espoir yi quoi vraiment mbëri ndaw yi mm-hmm. fay xaalis bu baax am na ci solo quoi vraiment <laughs> mais ay cent mille ak deux cent mille so yorul kër non yorul kër damaa jóge booy bu ndaw di préparé nga jox avance deux cent mille bu ñëwee bu demee entraînement ñëw ñaari fan da koy lekk mu jeex hmm. ah wala yenn saa nga day sëriñ boo xamante ni day metti laaj la sarax boo xamante ni mënoo kaa génn te mënoo bàyyi sëriñ ba hmm. te boo boo génnee sarax bi sa avance jeex hmm. ah boo fa génn sëriñ ba mere waaw yaa ma gën a xam daal. li daa war waaw mais kon nañu fay gars yi kese yu baax am na ci solo mais ñoon ñu gis keroog bi bi booy bi daanee daw daw daw song la nga daal di tuur xiiw ba ci ba non ñoon non ñoon ba commentaire yi ñu bëri ñu laaj ba am ñoon la moo tax xol bi gaaw a tooy non bàyyi la la loolu dara <laughs> xam nga mbégte dafa doy waar ko hmm. xam nga tey euh, maanaam man koo baabi seetaanu ma ko après ku ñu Abdoulaye Touré moo ñëw jël portable am wan ma ni après ci portable laa xoolee combat bi quoi xam nga hmm. parce que tey mooy li mu la expliqué sànq rek préparation combat dafa metti dafa metti man damay dem géej foofu ci moom yaa ngi dégg ñu préparé combat bi lépp di xool. Mhm. ma xool boobu coono yi muy daj. ma ne kii amul dara lu ko arrangé tey tey ci làmb ji lu dul ndam. Mhm. man saa wu ci làmb damay jékki damay absent dootuma bokk sax yenn saa yi nga business yi romb ma damay a laaj waaw bàyyi nangam ak nangam may leen ko damay jéngu nii rek. Mhm. waaw mais bu bëree pare nag yàlla may ko ndam da ngay xam tey woon yëpp maanaam genn wàll dañ na quoi. waaw da ngay xam yi. ma damaa jaar si bëre moo tax te maa ngi bëre ba léegi. loolu moom moo tax du ma xalaatee paka paka yi ak bagage yeeg affaire yi il faut Sanokone day génne far foos mënoo ko téye. si waaw ah, mënoo ko téye quoi. Mm-hmm. ndax làmb ji li muy fees doom ñaari doomu aadama ko fesal ki sañse ba rafet ñëw toog naan yàlla nañ ko daan. ak ki mm-hmm. sañse ba rafet ñëw toog naan yàlla am ndam. Mm-hmm. ñaar ñooñu ñoo fesal stade kon nag bu ko yàlla mayee ndam dañuy am mbégte mu doy waar boo xam ne dañuy yaa ma gën a xam quoi wallaahi. loolu rek la mer dara. waaw. ñu gis champion mel ni Ahmed Deme keroog ci hmm. cumukaay mu ñëw dooleel ko moom mu nekk champion am te gëj na bëree mais daanaan la non Ahmed Deme kenn du moom hmm. nit ku baax a ngi noonu wallaahi benn mbër buy bëre caare te du taxaw boo doon bëre jege ginnaaw Touba wala ginnaaw Màkk sax na ñëw na ñëw ànd ak kon yàlla ko yàlla ar yàlla sàmm ko xam nga yàlla taxaw ko yàlla may ko combat yu baax mu gañe ci ay millions yu bëree bëree bëri di mu li soxnaam ak ay waajuram ak ñëpp ci barki salaam moo xam ne nit ku baax la hmm. xam nga may a bëri caare yëpp ak sunu grand Xaadim Ndiaye vraiment booy préparé mu ngi doon ñëw Issa Pouye Xaadim Ndiaye numéro 2 a na ko mhm. yi boo xamante ni rek yaa ngi takk ngemb caare na yàlla sama borom taxaw combat boo am yàlla defal la ci ndam barki Sénat Mohamed vraiment gis nañ taxaw na mais Ahmed